kep ku si dugg rek day mel dañ lay mouler da ngay nek ci moule bi sa moule nga xamni tu as l'impression que dafa mel ni dañ ko transformé ça fait mal et yërmande boobu daf dañ ko ñak depuis le début c'est-à-dire que ego surdimensionné et puis c'est un régime bo xamni qui fonctionne à l'image de ki djité jiite le président Macky Sall on a l'impression que ñep le mere on a l'impression que moom dafa fallu rek mere ñep tu dis mais quel est le problème ñay gaay yi dañ ko fi ñangal ñeneen ñi président day mer rek du ré Do comprendre. après man dem naa ba mu yàgg ne mais président bi yàlla na ko yàlla sutural yàlla na dimbali. yu rof ko bax bax ba mu dox ci fi wara nek. le pays a besoin de de tendresse d'affection d'amour de de paix paix durable bi moo wax dañ ko soxla mais lolu ci ay acte la. c'est comme je prends par exemple le cas de Ngagne Demba Touré Ngagne Demba Touré buñu togué ñu naan ñu juge bi daf ko saaga daf ko ne tu un lâche. ça fait mal Buñu togué gis ne que à la limite, il y a de la méchanceté en l'air, on insiste à. Sur ce cas, par exemple, moi, j'aurais aimé, j'aurais aimé ça, parce que entre l'acte qu'il a posé de partir en exil et de revenir si vite, si précipité, j'ai un problème. Pourquoi, pourquoi il est revenu c'est la question que moi je me pose. Pourquoi il est revenu Je ne sais pas. Mon mogram, mon risqué, mon objectif, parce que c'était risqué. Mon mogram, aussi. Mais l'un dans l'autre, il y a que le régime, Sénégal, Musuka, Doudou.

le cosmos c'est des signaux ou des signes moment on espère que nos enfants et les petits enfants vont vivre le vrai Sénégal si agréable et qui vont se dire que dans le temps nos parents avaient quand même lutté par rapport à ce que nous avons parce que ce pays là est immensément riche. Mm-hmm. le Sénégal on a besoin juste de bonnes ressources humaines. des ressources humaines de qualité mais ressources humaines juddu ga baax ba baax mu ngi ci deret ga way ga baax xulil ba voilà ak xam nga lan li noo wax meen meen li saa neex doon wax naan naan naan meen meen ak am solo wax ju dëggu la na nàmp ya moo tax yaay yi yàlla na ñuy yàgg baax sa sanu yaay yi ñépp yaay yu baax la ñu am yàlla na yaay di yàgg baax amiin mooy defar réew yaay ya, ya bax mo la dafa rew mo tax ñu naan jigéen ah moytu leen jigen ñi bu leen genn timis bu leen genn yor yor sol leen dal jigen du karas karaasi du dox di xoss mhm. baxul Jigen bu dee joxe ndox dafa war a ànd dal ak teey mhm. mhm. eh, jigen leg leg nga wax ko ñu naan la non tu es machiavélique tu es mazo tu es que il y a des réalités Sénégal ba jëk dañ daan dundé la nga xam ka daan natal xam nga mo la lan leket ak layu ak yenen yu mel nonu mais dem leen xool ñi nekk ci yoonu puut beek ngaay ak Tiwaawan ak fa ca des. tey jaay pañe yu mag yu rëy yi. pañe yooyu ñun am nañu ñoo xam ne nu kaa jëndee fii di ko jaayee fële trois cent cinquante euros di ko jaay fële parce que tubaab bi dañu bëgg yooyu xam nañ lu baax ñun nag dañu kaa am teg fële dëkkee rek lu jóge ci biti ñu ne nice non maa nga ko jëlee non. moderne moderne modernisé. moo tax dëkk. dëkk dëkk da ngay jox nit ñi seen fierté. da ngay fexe population yi am fierté dëkk ba. waaw kii defar Sénégal li mu war a njëkk a lijjanti mooy sénégalais bi lekk ba suur xelam dal gis nga sénégalais bu lekkee ba suur xelam dal dina tal dëkk bi mu dëkk du xalaat li ci biti du xool télé mu ba gis tubaab mu yéem ko. Mhm. day bien xam ne mu ngi bien bala nga xam nga dem ci sunu mbokk yi nekk ci àll bi dans les zones reculées. nga fekk leen ñu nekk ci ci kër ya yaatu. te dëkk da daan am ëtt. dëkk ëtt daa baax day fa la ñuy defaree xale yi. ëtt amatul daal ëtt amatul. amatul li ma dégg professeur dama dégg professeur Massamba Gueye. Hmm. mu def émission ak Alima Ndione wax lu am solo mu ne mu ne 150 mètres carrés moo yàq Sénégal. 150 mètres Alima ne lu tax mu ne amatul ëtt. dëgg ndax ëtt lañ daan defaree nit ñi fa lañ daan jubal nit ñi fa lañ daan moo la penc. waaw moo la république. fa la famille bi di dajal. non si jiitu ñëpp. Hmm. moo tax moo tax léeg ngay dégg ñu naan fukki penc ak ñaari. Mhm. seen mbokk yi ci ndakaaru dañ ko gëm. su mu ne nii ba coolee ba coole danaa dugg nag toog nag penc mi kilifa yi toog ñu ne mag ñi lii xale yi ñu defar. Ah. ñu ñaw réew daa soxla loolu. moo tax il nous faut un patriarche. il faut une démarche patriarcale et participative nga fexe ba nit ñi bennoo sénégalais yi nga dool delloo leen ci loolu mu ngay tàmbalee ci lenn saaku ceeb bii di jar vingt deux mille ak vingt nga yóbbu ko ko ca. 10 000, ba mu nekkoon quinze ba mën na ne nit ñi souffler lekk bi am am les pêcheurs nga delloowaat leen seen ak seen yelleef ci géej gi ñu napp gi dellu si waat nga fexe ba jën yi dellu si ci Sénégal mhm. oto yu yàqu yi nekk Sénégal yépp ñu dajal leen tour, leen ci géej gi sunu géej de coudi nous ñu tour fa yooyu bu ko affaire bi bari ñu soufflé

les jeunes sont épuisés en fait ne sommes pas ça mais jeunes non les jeunes li fi ci jeunes. jeunes les jeunes mais mais si ça veut dire si ba le toog yàlla man ma ay mais limite ça n'est que jeune erreur quoi parce que jeune c'est une catastrophe c'est la débandade chez les jeunes. et la politique de jeunesse du président Macky Sall c'est un échec cuisant. un échec qui ne dit pas son nom Tilan parce que président bi casting bi mu def moo baaxul ña muy dénk ñoo aayul loolu la dëgg. dañoo aayul wala dañoo dañoo sawaru la def je donne un exemple les jeunes sénégalais ils veulent quoi travailler. waaw. y a l'agriculture pour travailler. Mhm. jeune yu bëri bàyyi seen de yi ñëw Dakar nek marchand ambulant ñen ñi ne dañuy jël gal gi dem dee ci géej parce que amuñu yaakaar fu ñu tourné nga sànni leen lacrymogène dóor leen mais finalement tu asphyxies tout le monde le régime du président Macky Sall il est lourd d'asphyxie il est pesant ce régime-là et là, le jour, nit ni di génn de par des milliers de dawal mais ñu nekk ci géej. Mhm. mais l'autre, c'est un mais c'est normal bu nous dawoo ñu tëj la. boo dawul nous, nous, nous, nous, nous ñu sànni la lacrymogène. et puis et puis cette jeunesse à qui cette jeunesse qui a besoin de vivre et de survivre qu'est-ce que vivre survivre il faut quoi il faut juste des stratégies assez géniales lan la ni yi dañu war a occupé wu dañuy jàngi wala ñu liggéey mais liggéey baa ngi fi am pagaille mais problème bi mooy nguur bi moo fi ñëw nekkul ca liggéey ba da cee newul. moo tax affaire je donne un exemple le football. football bi rek mënoon na régler problème yu je donne un exemple le foot il y a le championnat national de football. Mm. normalement chaque week-end nit ñi dañu war a en famille dem stade comme ni ñuy demee nawetaan. Ah. L'État du Sénégal aurait pu faire par, le biais de la Fédération sénégalaise des jonction équipe nationales avec des équipes traditionnelles avec les clubs de football Nous fusionner avec les académies et les autres État avait financé Nous ñu le championnat national Et nous avons aurait pu profiter de la Coupe d'Afrique de la Coupe du monde de la Coupe d'Afrique bi ñu Coupe ak euphorie bi mu àndal Regardez la masse de jeunes sont pour équipe nationale bi ñu ñibbisi. waaw mais bon ne occupé ko ci football le football il y championnat national partout au Sénégal stade yi di le stade l'économie du di mais stade nu Il fessé ni koy fessal faaw ñu am luñu jëndé bi ah ok ay tu as des clubs de football yo xamné bo leen soutenir financièrement mais pour les soutenir financièrement qu'est-ce qu'il faut faire Il hmm. faut ngay def d'intérêt il y a les jeunes qui jouent au football championnat il leen 75 000, ay 75000 mais fexel ñuy fay faut 400 000 francs hmm. Un jeune qui joue au football au Sénégal, qui gagne 500 000 francs le mois, sa vie change. Il devient plus responsable par rapport à sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Il devient plus responsable par rapport à la famille qu'il doit fonder. Il tant que d'abord changé, les professionnel de football Il dem di données changé nga métier il a di comme les Marocains. il faut par exemple pourquoi Pourquoi femmes football il aspect ni ñuy jëlee xaalis di ko tuur ci làmb ji pour nit ñi daw feesa làmb mhm. ñu def ko ci football national bi de sorte que nos clubs am des académies nga dooleel leen académie yooyu di former formation ba am ay formateurs yu fay ko salaire ña fay génne ñu leen di jaay équipe bu nekk bu jaayee benn jour ñaari jour am ci benn 60 millions par mois wala benn 100 millions wala am ci benn 200 millions wala benn 500 millions l'année ça change tout le club vit loolu mais tu permets à la jeunesse d'exister benn pan la benn exemple la parmi tant d'autres il y a les jeunes ébénistes, menuiseries, les artisans qui sont si talentueux. Mais quand ce régime n'a pas le temps de faire focus sur tout cela, tant nous a Nous mandat, nous fait toguer, politique. nekk ci yee un fayda waaw fighter. ñu nous du ñu wax waxi foule, foule bi officiel pour def discours qui paraît. dans le fond ils n'ont pas le temps de travailler. coolee fi ne yooyu je suñu jafe Il waaw a matière à faire te jël seen bi

niir mooy lan. niir moo lan li tiim réew mi li noo tiim mel ni brouillard gisoo climat bi ni mu mel. poussière bi la. lépp ci ànd. lépp ci côté ñii la dundee. day ñaan yàlla am la bees. paasal paasal pardon grave baal ñu de baal. yàlla na yàlla rendre dynamique ce pays là. amiin redynamiser ko. amiin changer yaakaar judduwaat espoir moo manqué Sénégal. waaw 2012 ba 2024 Sénégal espoir dafay dee. maanaam nit ni ñu amee Benno Bokk Yaakaar la nga waxoon. Hmm. Ah, kon noo tas suñu yaakaar. <laughs> Eh. waaw paasan merci paasan grawal merci. paasan nee na waaw waaw nena no non xaar dinaa la ko jottali dinaa la ko jottali nee Benno Bokk yaakar la waxon waxoon te mujj nañ Benno tas suñu yaakaar ci li paasan wax en tout cas comme li mu wax rek nañ ne amine yàlla na lépp changé lépp ñëpp changer Je à am liggéey vraiment Sénégal donc, Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite en tout cas à très bientôt Inch'Allah. Sénégal, Sénégal ñoo